salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ngi suivre seen site internet luttetv.com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare tey jeudi 5 novembre 2020 ñu ñëwaat ak yen ci yéen kaay comme ni ngeen ko amee chaque jour tey nag ma koy Cheikh ak Lirou Diane di ci nuyu ay waa Vice FM ba ci Gambie Mbirkilaan FM ci Saloum di jëmoo ak Babacar Sarr doomu nday Abdou Dramé Gambien ci États-Unis ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziare waaye nag di nuyu waa Loore yëpp ak li ko wër. Nirou Diane nag amul dëkk moo tax naa ne. waaw ñi may yàlla maa ngi nuyu di waaw maa si Lamine ngi lay fay di la nuyu di nuyu fi ñu nekk dëkk bu sell bi muy Ndiassane. Mm. te ñu ñëwoon fi gàmmu si am fi ay kóllëre rek ñëw fi. du nuyu ñëpp du nuyu sama doomu ndey ah ñoom Dieng seen ñi yi nekk fii yëpp yëpp yëpp maa du nuyu waa Géejawaay ah di nuyu waa Altu Ndàngal ma sama dëkk. ah waaw waaw waaw yaa ngi aw ma dëkk ah, waa Altu Ndàngal ma. kër du nuyu ñëpp waa déglu ma dafal ndànk damay vraiment di leen gërëm di sant ñu nekk nga fekk ñu fi ñu nekk si Ndiassane tey maa gërëm ñëpp daal di sant ñëpp waaw euh, ci ñu bisimilah ci rëb rëb di nuyu waa États-Unis di nuyu sama rekk ja Mafal. maadu saw di nuyu maadu saw doomu ndeyu Mafal bay Fall mag Maadou saw nuyu naa ko di nuyu moo géet. nuyu ko ci àngale Maadou Madou how are you fine thank you good good. good waaw di nuyu sama yaay ji Adja Gaas at Kumba Mboor at doomam ja ah euh, Ibba euh, non ñoom kii nu mu tudd ñoom Sam maa ngi leen di nuyu di leen sant. dinañ waaye ñëw di nuyu waa États-Unis gépp. dinañ ci ñëw moom Ndiaye at ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziare. ñu ñëw ci journal sunu lamb. journalu record ak journal bi nga xamante ne bu bu nu mu tuddati maa ngi lay wax Bokar Ndour sax ah, <laughs> ak journal bi nga ah, xamante mooy Vox Populi ah. dañ ko commencé ci journal sono laa mu mel ni ki nga xamante ne moo fi war a wuutu Alioune la xëy fësal muy Bira Sène nouveau président du CNG Bira Sène confirmé ce jeudi ba pare def point d'interrogation maanaam ab laaj bu mu xëy samp dëgg yàlla xaw ma bira seen xaw ma de waaye am na lu koy xaar lu méttee méttee méttee lu mm. garaaw lu tàng jër moo koy xaar. ndaysaan papa Aliou Sarr de gàcce nga laa ma bay na waaram. Mm. ah tubaarkàlla macha allah papa Aliou Sarr gàcce nga laa ma yow. Mm. waaye kii di ñëw. ah bira am nga looy xaar lu tàng jër. am na soxla de ah am na soxla bira am na soxla de. waaye yal na la yàlla jàppale. ñoo ngi lay dalal ak jàmm nag. ah dugal ci bisimilah rahmaani rahiim àggale ak alhamdulilah rabbil alamin wax dëgg yàlla nag ñoo ngi lay dalal gars yi na leen ko dalal rek na leen ko dalal ñu xool. journal sunu lamb am na ab laaj la daanaka bu mu xëy sëmp mais bu fekkee tey ji ministre bi teg na ko fi est-ce que du nekk mbetteel tey ci njabootu laam est-ce yow ci ci liiru jaan est-ce que doon xaar ma déedéet di wax dëgg yàlla nag dëgg rek a neex yàlla xaaruma ko woon la ci man hmm. te bëri na hmm. ndax ministre bi daa bett ñu bëri ndax fi ko gars yi doon séentu génnul foofu mu génn feneen man kii wax dëgg yàlla xaw ma ko hmm. te ñu bëri xamuñu ko tamit yow xamoon nga ko man ah, c' est président CRG bu Kaolack. ah président xaw ma ko woon wax dëgg a président CRG bu Kaolack waaw wax nga dëgg man de wax dëgg moom ku xam gestion la maanaam wàllum na ko. ok maanaam am na ay diplôme yu bare bare bare. te comme ni ma ko waxee rek président CRG bu Kaolack la. waaw yaakaar naa ne kooku jiite. donte nag ndax. non bokkul jiite CRG ak jiite CNG. bokkul de du benn jiite bu Kaolack ak jiite CNG bu deux. noonu daal la demee Lirou Diane waaye yaakaar na tamit lu diis kese la ñuy yéenu li ko li tax daal mu oyof ci moom mooy muy diisoo ndax yaakaar naa ne ah. CNG tey bi fi jógee lii leen yàqal ci dernière année yi ñàkk diisoo rek la woon yaakaar naa waa loolu doog mooy wax ji ndax ah, wax ji mooy nay diisoo gaa yi tey yëgoog ñoom rek wax dëgg yàlla tey waxtaan ak ministre bi ak euh, stafam ñi muy liggéeyandool mhm. waaw wax dëgg yàlla ndax euh, a ah, bi CNG bi bokku la bu Kaolack de déedéet bi mooy bu mag bi waaw bi mooy bu mag bi moo jiite CNG yëpp yi nekk Kaolack ak ay mhm. ndar ak fépp bii moo leen jiite mhm. ñun daal ñoo ngi koy ñaanal daal yàlla na yen ba oyof ci koom waaye yéen na lu diis nag yéen na lu diis ay papa Aliou Sarr gàcce ngalaama papa Aliou Sarr gàcce ngalaama papa Aliou Sarr tubaarikàlla macha allah maanaam yow liggéeyam daal rafet rafetlu na ñaata at mu yor CNG bi. Hmm. moo fi jëlee jaasi. Hmm. jëlee fi paaka jëlee fi béjjën jëlee fi kóor jëlee fi yu bari. gën na ngalaama wax dëgg yàlla jëlee fi gën hmm. waaw papa Alioune Sarr daal tubaarikàlla macha allah man de maa ngi koy ñaanal moom la mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal. moo tax journal bi tamit ni 26 ans yi nga xamante dafa ko consacré. ci mhm. làmb ji. Mhm. ban vue la Alioune Sarr di am après CNG bi moo tax ñoom Gaston Mbengue joxe ci seen xalaat. Mhm. ñii ne day day occupé ay ay ay business su boppam. Gaston Mbengue moom la mu xam ne moom mooy day concentré wu ci li nga xamante ne moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy clinique am maanaam daal ñoom ñaar ñoom ñëpp Malick Thiandoum Doudou Diagne Diécko ñoom ñëpp. waaw c'est normal loolu mooy yoon moom du moom yemul woon ci CNG bi rek daa yor clinique. Mm. te clinique boobu yàgg na faa dimbali ay doomu aadama. Mm. fi mu ne tey su dee jotee ci bopp CNG bi de day dem continuer ci liggéeyam clinique bi yàlla na ko yàlla jàppale. Mm. mu continuer ci liggéeyam man daal Papa Alioune Sarr amul dara lu ma koy wax loolu gàcce nga laa ma daal. ok loolu am na solo ñu des ba léegi ci journal sunu làmb rek nekkuréel moom mooy xëy di dànkaafu ki nga xamante ne moom mooy Marley nee na nag mënu ko andil benn problème bu arbitre génnee seen diggante. Ah! lii nag revue de presse la ndax wax dëgg yàlla nag man géejawaay laa dëkk te maar la sama rakk la. Ah. am na yoo xam mënu ma ko wax la lii revue de presse man daal na ko réel la lu mu wax ne. la ma ne ko maar mënu koo yëngal. waaw na def ndànk nag ne ko réel la ah damay revue de presse damay journal waaye nag attention de am nga combat de. Ah. ndaanaan nga am ko lu fadlil maar la rek na ko réel d'accord champion la ndaanaan la am na fu tàkkusaan bu waaye am na am na combat nag. Ah. maar le ah champion la tàkkusaan bu ne am na ko gàcce nga laa maggun ak géej way googu cum ay marle kenn du marle ay nekoreel ay nekoreel ak ma marle nekoreel ndaanaan la kenn wérantewul ndaanaan la ay marle ay marle ay marle ay marle ñu des ci bi rek ba léegi comme waxu géej waay ngay wax ñu des ci ndax am na beneen waxu géej waay bu wax muy Sa Thiès ak Garga Mbossé trois promoteurs instant ñoo ngi dox combat boobu xam nga nag benn affaire dafa am na promoteur xoole bu ñu fontoo bu ñu fontoo nañ taxawal combat bi combat neex la ñaari mbër yi bëgg nañ combat dañuy bàyyi li ñu def chaque jour tay kii tay kële suba kële nañu taxawal combat bi waaye wax ji jeex combat bi ñëpp ko soxla combat jànq la combat neex la ay espoir lañu nan taxawal combat bi. promoteur moo tax trois promoteur instant bi. ñu mbër yi bëgg nañoo bëre nan taxawal combat fay leen xaalis ñu dem bëre mu jeex ay xale lan. dañuy liggéey. Hmm. fay nan leen fay ñu bëre waaye tey promoteur bi suma promoteur ak li wax doom te génne woo dërëm loolu baaxul. Hmm. promoteur bu commencé soobu di wax am xaar rek am na benn promoteur buy ñëw sama benn xaar bu ñuy wax Maadou. Maadou Sow Maadou Amérique la jógee mi ngi ñëw. su ko fekkee. barki Serigne Bamba suñu dof la su ko promoteur gaaw su ñëw ma naa ko tëggal combat bi. Maadou Sow combat bi boo xamante ne gars yi tëgg nañ ko muy ay combat xoyantaan instant bi nag moom ñaari combat la jël. journal ñëw ci. kan moo jël ñaari ma Baye Mandione la jël ak Double Tyson. kan moo jël Baye Mandione ak Double xoyantaan. xoyantaan waaw. Ah, ah am nay combat nag ñaari combat yu mu jël ci moom dis na xoyantaan am na combat dama liggéey ñaari combat la signé. waaw ah am na combat de wax dëgg yàlla am na combat de moom comme mook Baye Mandione moom leeral la rek. Ah. ndax gàmm dañoo waroon a bëre ñu ah. mook Double Tyson tamit tubaarikàlla macha allah xale la te xale bu nekk ci yoon la Double Tyson xanaa xamoo yoroon naa ko. barki Serigne Bamba nekkoon na ci man Double Tyson. moo xoyantaan la faral kan. Double Tyson la faral. xoolee daan Baye Mandione. Baye Mandione laa faral waaye yow yow booy boobu ma dem Gàmbi booy bi di ma indi ay benk ñenk di ma wax man booy bi suba du ma wax ma wax ma naan toogu ma fii ak toogu ma fa non man booy boobu daf maa bett. booy boobu kay yàlla ko yàlla jàppal tamit mbër la naa ndaanaan la wax dëgg yàlla te am nay supporter ke lamb ji bu feesal ko wax dëgg yàlla. journal bi tamit war nañu ki nga xamante ne moom mooy Zarko li ñu wax rek ba léegi ngi koy xaar. kan. Zarko fu ñu koy xaar. ci làmb ji tapet boobu kooku fàq ba daw ngaan Zarko ñoo ngi koy xaar. revue de presse la ñuy def de xaw ma revue de presse la ñuy def su fekkee dafay bëre na ñëw bëre Zarko gëmatuma mu bëre xale la am na doole na ñëw bëre moo gën mu dem pari toog foofu. Espagne la nekk Espagne moo gën mu dem toog Espagne na ñëw bëre su dee xaal li muy wax dëgg la ci moom na ñëw bëre man loolu laa gëm xale la ay moromam mi ngi fi su ñëwul bëre rek ma xam ne tapet la. Hmm. waaw waaw su ñëwaatul bëri takk ngemb la ma ne Zarko tapet la. Hmm. man maa ko wax. aywa ñu bu ñu jeexalee ci journal sunu làmb dañuy ñëw ci journal bi nga xamante ne moom mooy di record hmm. comme ni ko Abou Ndour bindee démb dafa bindoon ni Madou euh, Bira Sène la ñuy jox li nga xamante ne moom mooy moom mooy président. Abou Ndour moom xanaa da koo xamoon avant ba pare waaw démb bind na ci. Euh, waaw moom te moom falagunu woon moom xanaa da koo xamoon. wala ah. dafa am ku muy jokkal ministère. journaliste bu mag la moo tax muy. gëstu waaw Abou Ndour d' accord journaliste bu mag la man ko ndaanaan la ku la ndax lii génnagul moom mu yëg ko kon y' a quelque chose am na lu ci xew. waaye moo tax it indi na yeneen yoo xamante ne wax na ko te ba léegi ministre bi joxeegul liste bi nee na Yékini mi ngi ci bureau bi Tyson mi ngi ci bureau bi Moussa Ndiaye mu ngi ci bureau bi Maysa Ndiaye man mi ñu waxoon sànq. waaw Manga 2 mu ngi ci bureau bi. ah tubaarkàlla Massa gàcce ngala Boy Kéré duggul. Boy wax waxaguñ ko. Moustapha Gueye duggul. ah doy na waar de waaw c'est normal loolu rafet la loolu rafet la ndax loolu lépp man d'accord naa Tyson dugg d'accord naa Yékini dugg d'accord naa Manga dugg loolu lépp naaj na day tax day gën a defaral làmb ndax ñoom yaakaar naa xam na ni seen doom yi ñoom xam ne ñoo nekk ci làmb ndax dañoo bëre bu ñoom ba bàyyi bëre. waa xam na le nekk ci biir géew loolu baax na ministre bi loolu mu def foofu tubaarikàlla macha allah. baax na li ci jaral leeral mooy parce que doon nañu dégg yëkk ni bëggul mais bëgguma ci bokk ci eh, maanaam comme ni ñu ko defee woon maanaam équipe bu bi fi nekkoon. Ah. yëkk ni boobu boobu moo taxoon. mu ne bëggul maanaam bëggul woon continuer ah, di ànd ak ñoom ci lu leer. maanaam ci lay duggee ci CNG bi mm. yaakaar naa ne moo tax ministre bi convaincre ko mm. tegal ko loo xamante doy na ko ba tax mu ñëw nangawaat ko fi ay mu ne démissionné ndax a bëgg liggéey ak ñi fi nekkoon waaw parce que mënatuñ woon mënatuñ waaw waaw amatuñ woon énergie léegi nag comme que ñëw na xañ na dafa am lu ko ministre bi wax te xañ na tamit ñi fi nekk ni xañ na mu jëm mën na liggéey ñoom moo tax mu ñëwaat rek mm-hmm. waaw nan liggéey daal ñoom daal seen rakk yi ñoo nekk si làmb ji ak seen doom yi mm-hmm. waaw nan leen ak seen seen jarbaat nan leen jàppale mm-hmm. xam luy doxal làmb ñu koy wax euh, président bi. Hmm. surtout comme président bu bees la ah CNG Kaolack ak CNG fii bokkul de ak Ndakaaru bokkul. ok waaw ñu ci Vox Populi Vox Populi Alioune Sarr xëy fësal gis nga ko nii. Hmm. moom nag nee li nga xamante moom lay regretté. maanaam regretté dafa am nga xamante ne sa xoola rafet rek bàyyi. yàlla la yàlla jàppale papa Alioune ndax euh, bu ko regretté da nga doon doom di eh, askan wi bëgg la ñi ñëw di la jiite bëgg la wóolu la am ci yow moo tax nga def ci vingt six ans su woon loolu doo fi toog ba heure bi ndax téye woo woon sa bopp dañ laa téye woon fii yow daal yàlla la yàlla jàppale. vraiment neen daal leen tamit loo xamante ni wóor na ko moom. san doute mooy yàlla moom. ku juste la. waaw loolu moom dëgg la yàlla moom ku juste la moom wax dëgg yàlla. yàlla moom ku juste ndax ñoom wax dëgg yàlla moom loolu moom gàccee nga laa moo ko xam yàlla na ko yàlla na nag bu fekkee am na dara loo ne moom lañ leen di reproché mooy yàgg gi ñu fi yàgg waaye gisul ni am na benn erreur bu ñu a a ay papa ñëpp jégal na la papa gàcce nga papa Alioune Sarr 26 ans xam nga du caaxaan. Hmm. foo ko def tubaari kàlla daal macha allah daal gàcce nga laa ko jéggal na c'est triste man sama yaram dafay daw sax papa Aliou Sane ndeysaan ndax wax ji nga wax saan ak lu nekk dégg nga ko fi ndeysaan oh sama yaram dafay daw papa gàcce nga laa ma yow daal tubaarikàlla macha allah jéggal nan la. bon sens Birasène. waaw bon sens nag Birasène xam nga li lay xaar. xam nga lu lay xaar ñu ngi nuyu ñuy suivre le TV point com yëpp foo amee ne nekk ci àdduna bi ñu ngi leen nuyu bu baax di lay ziar di nuyu sa waaje Maadou Sow Maadou Sow borom états doomu nday Mafal doomu nday Mafal ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziare di nuyu Abdou Dramé waaye Abdou Dramé Gambien ñu ngi koy nuyu di ko sant ñu ngi koy nuyu di banama banaa ko daa mbëri bees noppal na ko moo xam ak ay mbëri bi ba mu amee jëkkër ba léegi dafa wulay mbërëm temps yi noppal na ko ñoo xam noppal na ko di ji. Basir waaw c'est mon ami sama fa Basir man. Basir bu Modou Dia. bu nekkee sama waay. ah du sa xarit. nekkul sama xarit. am na Moustapha. am na Moustapha man. bi mu sa xarit sama am na Moustapha man. bu Modou Lo. xaw ma ko eh, sama waa ji Youssou Ndoye équipe nationale internationale Youssou Ndoye c'est mon sama frère du nuyu sama yaay ji Adja Youssou Ndoye xanaa xamoo léegi mi ngi fële Espagne. doomu nday Babacar ma xam naa ne Espagne ba dimbali ma ngaan doomu nday Babacar at sama doomu la man la fan yëpp la ma xam yàlla na ko sama yaay ji Adja Gass ak doomam ja euh, Sam sama frère ak Kumba euh, Mboor euh, waa Angleterre du nuyu waa France du nuyu waa États-Unis sëñ Samba Ndour sëñ Samba Ndour suma xarit borom Touba ah at kan. sëñ euh, Modou Seye sëñ Modou Seye borom tawféex. sëñ Modou Gaynde borom Kéemaan sëñ Modou Gaynde borom Kéemaan ma ana sëñ Modou Gaynde borom Kéemaan. mu envoyé na message léegi naan ñu ngi koy invité àjjuma nuyu xaas vraiment. Euh, di nuyu ñëpp ah di nuyu Gassama Prince ñëpp di nuyu sama sëriñ yi. Prince suba dañ ko invité Prince. Ah. ah waaw loolu baax na. loolu soxna na Fall Fall jox na oto bi joxaguma ko oto bi ah yoroon ko oto bu bees de. ah ma soxna si joxaguma sama oto. Lamine bi bi ñu nekk moom Lamine xam nga oto bi moom. oto ah. laat Lamine oto la Lamine. Ah. soxna si joxaguma sama oto sama yaay ji sox. soxna na fàllu fal maa ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm yi soxna si nag sama yaay booy jooju sama oto bi nga ma diggoon jox ma ko yaay booy nag jox ma ko coow li na trop yaay booy jox ma ko andiwaale fii voilà ah, maa ngi fii ci Ndiassane di nuyu waa Ndiassane yaay booy ñaanal naa ñëpp di ñaan sama rakk ji Balla Gaye de comme mbaam bi mu tudd ah, yàlla ko yàlla may ndam ak Lac de Guiers ñëpp ak ñëw Aliou sama rakk ji yàlla na am combat